يا لي ولا يكرم عندنا Amen.

Amen. الخلق كلهم

Holy يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى بين أخي في الأرض كلهم وعندما حوت من ورق وكل حرف غالي Hallelujah. طرفة عين يكرفون بها أهل السماوات والأرض أو يزال مر من عدد ربي ما تعرفهما والفضل منتظر Senhor. Muhammad Azizul Mawla. محمد تدور لا يقال tagg nabiyillaahi ki yàlla yónni azaka moo gën a seer taabudi mboolem xeet jaamu yàlla julli woor joxe azaka jox ko mbokk lépp muy baax baax tagg saa si la moo gën a baax si kanamu yàlla xamal li ma xawaa ndax li mu làq la la làq ma azami fatina wa faxin fali bu mu mën a doon laaw fali bu mu mën a doon lu mu yaatu yaatu mu am kenn rek kenn rek ku réussir di ne ko salaay salaay salaam ne ko léegi kooku moo gëneenu kër gi min fadlin ak lan lima xaala min fadlina wa faqin kër gi bu ànd kuy tiitaroo rek rek rek rek doy na seen kuy tiitaroo maas ñi ñàkk ama sarama hey wa suudat yi képp ku am sànni di ko indi nañu indi maas présenté ko rek mooy sànni ko lima xaala min fadlina wa faqin wa suudat fa ma dëkk bu ngay lan ibadatu fa ma ibadatu di ko tagg jaamu yàlla la laa loo bon bon boo ko bëgg yàgg àjjana. ngay julli si moom yàgg da ngay am doon nekk ànd ak alaxira. yéenu naa ki nga xam ne ko bëgg ba noppi di julli si moom. eh jikko dafa laa bon lool dana fekk lool. moom ku baax rek lay àndal ku baax rek la xam. Bamba te mën ko dóor baaraam suñu bopp. wasalaamaaleykum. ak kaka doon lool de daal woon lool waaye. yàlla yàlla julli te jàmmal ko waaye. yow yàlla yow ay ñaan doon ko jàmm waaye. na ko doon daraja waaye te màggal ko waaye. kii mooy yonent bi aji laa. kii moo jiite képp ku jëm si yàlla. moo ne ma mën a yegg si yàlla. lépp luy xel kër moo ne si ñu jël. fii ak fële nag laa wax. askanam moo gën ci askan yi. wala tuuti kay. wàllu ndey moo gën ci ndey yi. yaayam dafa bokk fan bu rëy a rëy. waaye yaayam li nga xam loolu ci kanam waaye noonu la jikko rafetee ba moom yaayam. eh kaay bi yéemu si borom gënal gii. yéen ci moom la tudd laa wax kooku la tudd si yéen tey lu muy baax baax moo ko gën. yéen te boobu la tudd lu mu baax baax am nga ni. rafetlu moo ko gën fuuf si kanam. màkk yi ak ñi mu diir laa wax nag. tabarakallah. Moustapha. Yeah. Siddiq doom jooju di Aïcha moo toog bis rasulillah yi toog bi waxtaan ak moom Aïcha dañ jàng loxolu këriñ ba ab diib muy neexu ba neexu daal waaye Yuusufu daal kenn dàq ko boo xam ne waxtaan woon lool ba jigéen ñi sax dañuy dañ koy xool mbir di am ci moom moo tax bu ñu dagg seen loxo duñ ko yëg wax naa la ni la dafa am dafa am benn xale bu góor bu am yaay ju am doole lor ba boog am yaram lool ndey am yaram lor ba ñëw mu jóge dom ji yoy ba melni man waye yaay ngi wara wër kaaba gi wara dem maqam ibrahim war a daw sa akbar ba te te dafa tax lor te ko gi xam ne mu jël ndey gi bor ko di daw ak moom wër kaaba gi ci tagor gi ñukay dëgg di faale wu leen إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات وقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه السبيل mu jël ndey ji bot ko daw ak moom kaaba gi wër ak juróom ñaari yoon dem ma xam ibrahima taxaw ànd ak ndey ji julli jëlaat ndey ji boot dem soit ma wa taw aller retour taxaw nag di yëqat nag dem si dem si Omar ni ko xanaa sa mas ma yaay léegi jeex a tàkk eh. seen Omar xool bu jippi ko lool ne ko yow est-ce que xam nga lan moo nekk si mat eh, eh. ba dégg nga ma est-ce que xam nga ne si mat la nga wax tontuwul waa ji mu seen Omar rek bàyyi dañuy wax ni matu ak lu muy am am naqar lu muy am am tar-tar bu jigéen di am doom bu jaar fu mu war a jaar. boo ko defoon femme bu ndax ndax tàngooru am doom mu metti waaye li muy tànn tànn tànn bu doom ji ne bu xet génn ba doom ji ne ñee day am mbégte ba fàtte naqar yi ma amoon. summa samee yasarahu. summa amaatahu fa axbarahu. summa idaa saa isarahu kallaa lammaa yaqdi maa amarahu. fa yanzuri l insaanu mimmaa xuliqa ولقى ماء دافع يخرج من بين سوى انه على رجع الا قادر يوم تطلع الصلاة فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات السدع سبحان الملك عظيم دار kenn mënut a fay ndey waxuma bàyyi nag la talal ndey bu baax ba dégg ma kenn mënut a fay ndey waaye bàyyi la talal nag ndey bu baax kon kooku ko fële yaay mënoo ko fay waaye bàyyi moom ko sax calculé ndax moo talal ndey ko neexoon mu talal ndax ba muy wuti fekkee woo mu ne ko doom ndax xam nga li nekk si matu ndax xam nga li nekk si matu boo ko xamoon benn benn simb benn seconde boo ko xamoon laa wax doo yaakaar ni sa ndey fay ko parce que fa mu toog kon léegi ñu am naqar naqaram di tax du am bànneex léegi ñu am naqar naqar du tax lool benn bànneex ñëw rek mu fàtte naqar bi ma am boo weddee boo wooree ba koor di tax lool koor waawoo jamono mbóoyu nga woor di gaññe lool gaññe yi métti di xëppoo ndox fanaan ci jàkk yi yenn ci jàkk yi ngir bëgg am fiir fiir boo toogee ba ñu naan leen naan jot na ni ngay sa dama ni la mel leen aji woor am na ñaari leen aji woor am na ñaari mbégte buñ ne naan leen ba mu tiim lekk ngeen naan yi moo xam dagal na ci moom ak soxna ba buñ ne woori leen mu ba yi ko di déwén la ak bu yàlla wooy di nga fay nag payam ja mu xool ni ni ni yiwu koor toll ci kanamu yàlla mbégte bi muy am ñaari mbégte yooyu la la aji woon am Aïcha ni yéemu naa si boo xam ne taru na tar boo xamante ni dañu wax ne xaasa lillahi yéemu naa si yàlla ndax ci du nit tax ñu jël paaka yi dagg seen ay loxo bay waxaat paaka dagg seen loxo di jéem a ñu di direct daal ndax taaw yéen ci yàlla

xamante ni moom lay jiitaloo bu ko waree julli. Moustapha daal di génn fu muy duggaatee fàttu sama réer. day gis yaa ay sa mi ngi lambatu di xool puso bi fan la nekk. mu ne doo puso moo réer. Moustapha daal di génne kaa bi kaa bi mu kaa woon rek. جيبي من من بروجيكتور سي ليراي يا عائشة خول بيسو سبينا راي راي راي يا عائشة هنا ايه نيخ بني هنا لا وقت وأجمل منك ردق لم ترى مسكوكيس قط عين من بالمسكوكيس وأكمل منك لم تلد النساء xamante ni moo la gën a mat tànk yu mat sëkk jub xocc loxo yi jub xocc bët yi weex si weex ni tàll si doon li fut yéen ñi sëq sew xef yi sëq sew bëñ yi mat sëkk amul benn bëñ nga manqué 32 ans ba nga nekkee nii bu ngay doon judd ba ba nga màggee sa benn bëñ bëtul ah ku mel ni yow su mat amul waay. ya Mustafa xuliqta mubarra'an min kulli aybin. eh yaa Aysa nee na dafa mel ni xuliqta yàlla la bind mubarra'an ngay aji dañ ba dañ set ba set ba set wécc min kulli aybin ci lépp lu ñuy mën a ayub léegi naan waa ji dafa na lool waaye dafa yàq mooy tànk yi gën mais damay saako waa ji waa ji dafa na lool waaye nopp gi xaw ko doon mel ne daf si saako. nee na meloon noonu yow da nga rafet lool amul lenn mën a xool ci yow ba mën a dugg baax. tashaaw te annaka qad qulta kamaa tashaaw wala wa annaka qad qulta kamaa yashaaw dafa mel ni yàlla mi bind tànk yi te xam tànk bi moo gën a baax tànk yi moo taxaw qulta kamaa yashaaw naan bi tànnal bi moo gën a baax wala ko kamaa yashaaw waaw kay moo tax mu wax ñaara am na ka annaka qad qulta kamaa yashaaw ka annaka qad qulta kamaa tashaaw ñaara am dafa mel yàlla dala woo ñu la magasin ak tànk yaa nii xoolal tànk yi bala neex nga tànn mu tànnal boppam maam xaaj yi a tànnal dara fekk mu tànn baaxul am na kam xam xam xulet ka maa la maa bi na tànk yi xam naa bi moo gën a assuré jëlal bi tànk yi a baax bi doo dam du metti doo def dara loo xamante ne ci tànk yi dana am loo nekk. sopp yaa rasulallah defati anna rasula rabbil alamin. yàlla xamal ni annahu naka moom Musaa sallallahu alayhi wa sallam rasul rabbil alamin loolu yàlla yónni laa wax. xayrul mu'ajjilin. war a dem ci yàlla war a egg ci yàlla mooy sa royukaay. wasila jamil anbiya wal mursalin. yéen yëpp laa wax 124 yi dem ci 313 mooy seen sang laa wax. Mustafa raufun bil mu'minin. aji jeewante la ñu gëm yàlla laa wax. loo bëri bëri bàkkaar mooy ram yoonu xiyamati yërënte la bàyyi ma xëri jëm ci mboolem mbindeef kenn desul laa wax comme ni ko yàlla waxee yàlla may aji sell yàlla may aji kawe jege bii nga xam ne jég muy nekk moom Mouhamadou di bàyyi kenn seen doom yu góor yi ngeen wax attention ki la yàlla yónni attention li may lamb yàlla bi attention mooy kaabu yàlla bi attention mooy leeru yàlla bi attention mooy sikkar yàlla bi mooy xaytu yàlla bi mooy soppeem bi waaye xaritam bi moom it boole bi leen kii naa tey naa kaw kaw sama فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر وهذا ما هذا لكن لا يمازر من توالع وخضوع القلب والركن Madhurada a great واي موم نا لا يمازور كين دبا موم من تواضع انت طلقه زن مصطفى وصل من اجل قرباه مصطفى من تواضع كوي وجه سبب مولا كنا وجه بابام واي وقصوع القلب وام خول غرغال يالا دغ ديكو جاي بو نيي سي موم وجه سبب waaye warata bi muy jaay kersa ba si moom la ba kersa Moussa Fall mu daan xool ci suuf mooy ëpp lu muy xool ci kaw. waaw. boko xoy lu bëgg xol ko rek mu xol la lu muy bëgg boko ko bëgg nga am problème musala bo déggé turam dañu wax ni mbëgg ñett la leg leg ñu lay wax ci nit ñu la wax ci do ko ko ko ay tur ñi la ñi la ma ñi la mojjal ñi la muhammad nga ni muhammad mo da ka war tek so ci ne muy ñew moo dàq la muy doxee moo dàq la mu sañ sañseem même moom seerul dafa fekk ci moom lu sol lu ko yëg moom du sol lu ko jëloon sol lu ko du sol lu wax nga seen ko mu ñëw nga koy bu ñëwee ak ba joxoloo ko joxoloo ko da koy sopp ndax loxo bee mooy da muy limité ma ne bala nga joxee kàddu nga nuyoo mu nuyu la ngay jox kàddu da ngay sotti ndax boo bàyyi ko du bàyyi dama ni nag bu dee woon nga bàyyi ñëpp dugg ko bu kenn way wa xayri wa xayri jalabal wara wa liman ajaabu bay jibril naa la xayra كلامي من نينا وبخيره بالراء الخير وبخيره باللام الخير جاب الوراء ولمن أجابوا بالخير أي بالراء دون الخير أي دون اللام نال am na koo xamante ni Moustapha gisu ko gisul Moustapha Moustapha gisu ko waaye Moustapha dafa yem na rek mu jébbul voilà maas mooy woote ngir ñu war a ko gëm maas yebal ma ci mëxër bi mëxër yi gis ma ni ma yor loolu ni ñu caaxaan loolu dugg rek dugg na te na Ousmane dugg te na Ousmane bu man bi daa ko tii wa Ousmane zu salami maam nee Abubakar Siddiq moo bàyyee ko si Musaa sallallahu alayhi wa sallam dem si xaritam muy tudd Ousmane ne ko kat dafa dugg si biiru diine doon na si woo dina ji nangam nangam mën ko bu détaillé yow dugg si caaxaan dugg na gis ko gisaat ko waaye ñu bokk si moom rek ndax dund am na koo xamante ni dañ ko xool rek mu ñëw mu xool Musaa Musaa xool ko mu dugg naa ndax kanam gi ci kanam caaxaan waaw kon nag koo xamante ni ñoo bokk benn njaboot bokk benn famille bokk benn meen bokk benn deret te mënu ko gëm innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa'u borom bi nee na du ko mu neex rek bokk tabarakallahu ci islam ji waaye man yàlla may xool ku ma neex nekk doomu ku ma neex ma nekk yow da ngay bokk ci islam par force dootu doon ngir dem léeg-léeg itam ma xool ku ma neex bokk fu ko neex yow doo bokk tabaarakallaahu ci diine bi doon doon ngir dem day xam ne am na fa léeg-léeg nga gis koo xamante ni maanaam day nekk moo xam bu mag tax mu dem bokk feneen léegi gis koo xam ne gën a sax nekk muqaddam kaamil te muqaddam nag mooy gën a gën a mbir muqaddam c'est pas n'importe jamono bi nag fi mu toll nii nag léegi am na fu mu toll ba toll fa léegi c'est du n'importe quoi waaye mu xaddam dëgg day ne koo ne ni borom xam-xam lay doon di laaj nit ñi seen xam-xam di fi def seen aajo dépense dëkk bi ku am problème dépense ñëw dugal moom si biir néeg bi wax ko mu faj ko kuy si dëkk bi xuloo bi tar ko ku dem dox situation mu jeex gi nag day ne koo xam ne day wësoon ba du ñu wësoon waaye muqaddam boo xam ne nii muqaddam la yow man war na si yàlla ni mosoo ko gis foo xamante ni lu dul ci mbooloo boo xam ni feet la ba daayira ba xadra populaire da koy gis ñëw toog ko fekk am benn ngànt te muqaddam yow muqaddam li gën a gàtt li gën a gàtt te gàtt lool sama góor bi waxoon na ko mu ni ko doon te fekk kenn la point waaye kooku nga am 40 ans si tarixa bi 40 ans si tarixa bi 40 ans yi bay bay xaj ma rek da ngay fekkee fu ñu la leen balaa ko wala pour ngay leen ne da ngay fekkee fu ñu la leen balaa ko xalaat pour ngay leen ne 40 ans yoo xamante ne amul tëbal boo ko defoon 39 ans 6 mois nga xëy benn si am nga yàqu na da ngay reprendre à zéro waaye bu ñu la tarixa bi 40 ans fekkee wus na fu ngay la ne ak fu ngay leen ne xadal juma fu ngay la ne ak fu ngay leen ne nga def ko 40 ans nekk moo xam dara cëy waaye nag ñun am na fu ma toll ci dëkk nekk bu déewu dëkk bi ku am aajo ñëw si moom mu fajal la ko ku am problème mu xam-xam mu fajal la ko ku feebar ñëw mu faj koo xamante ni xeex am na si dëkk bi mu fexe ba jàpp nekkaat si benn mu am dara Moussa Ba nag noonu la ñu dundee ko jikko wóor lu waay di am ci leer ci moom la ballee ko wa majduna lu waay di tiitaroo ak teddalee ci moom la ballee ko wa moom moom Musaa sallallahu alayhi wa sallam musaffa'u mooy ramu jaam nga xamante ni xooloo bu métti mooy am xool dëkk bu la ko xoola sa yaay bi lépp sax يبذلونه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شغل يغنيه kenn ku ne ba sa nijaay bi ñuy wax sa nijaay ko jàpp sa loxo sa nijaay amal ko jàpp sa nijaay bi ñuy wax ni ma jàpp sa loxo bu nee maas bi ñu jàpp ko ma jàpp sa loxo yóbbu sa nijaay bi ko ma amal ko jàpp li kulli bi la la alxuraan wax ku nekk am na sa amul am na mbiram boo xamante ne ñoo nii ñu doy na ko sëkk ko tooy bu boobaa nag koo xamante ni yàlla dimbali na la ba ngay juddoo ba màgg am benn cofeel ci moom bu tolloon ni mu tuddee si wul yaa ngi àjjana safa nee na man sabara man sabara am naa kees di koo xamante ne jëmma jooju xol bi doo ko ibbee am na tool bi si wul si wul la si bi mooy deux dix centimètres. gën a gudd sax gën a tuuti kon kon loolu kon loolu kon tuuti na dix centimètres gën a man jëmm doo xamante ni nga baa jigéen ahabbani ma sopp ma lool pour yow na nga yëg ni yow ngi yow ay fi nga waaye boo ma bañee laa ko boo ma bañee bëggul ma nga ma bëggul ma loo def def ci mbaax mbaax alxuraan xoolul alxuraan nee na ki gëmul yàlla même mu tabaxee jàkk même mu tabaxee jàkk neen la ba du la amaatu ku nekkoon sax jullit sax ma nga nekkee jullit tabax ay jàkk ak i jumaa ba nga nekk yéeféer rek la nga defoon ci lu baax yëpp ma bari valeur la yow mi nekkoon yéeféer ba tabaxoon yeneen barab yi jaamu yàlla yoo xamante ne jaamu yàlla beneen jaamu yàlla boo ko jàngal ak islam nga tuub dugg si diine yooyu dañ koy jàppee ay jàkk yow yoo dawal yubaddilu llahu sayyi'aatihim hasanat moo leen ñaw te boo defoon rek borom bi leen gisaat la ngay pointé mu ne ci moo tax léeg-léeg ñu dugg dugg si islam day day day raw jullit boo xam ne mu la juddoo ba mag ndax kuy bi zero la ci bàkkaar

sàkku ngërëmam sàkku ngërëmam donc donc donc donc ak ñaanam moom dafa déplacé wu fa tabarakallahu di gërëm si lan mi ñëw benn sëtëm mooy Abdou Ba ndax keroog koy defal Pape Daan Fall ñeent fi mu ko defee sa géejuwaay dama tàmbali waxtaan ni ko nag ah su ko bëgg de maam Cheikh Niang zawiyam bële amul lu ko ëpp te nag bëgg naa képp fi nekk loo am nga waajal ko insha allah rabbuna ngir taxawu bisam bii nga xam ne bii mooy li ñu bëgg moom moo taxaw ni ma jox naa la cent mille francs ngir bis bi. ni ma itam jox naa la desiné boo xam ne naa ko ñëw ba ma sëkk nga soog ko gàmmu mu pare baat na waykat bi doon way foofu cent mille ma dara suba sa yàlla dogal ma amoon beneen programme maye soxna ak ñaan ñu dem fa mu mu mu ne defee kër ma ñëw kër mu génnee desineer bi ñëw boo xamante ne ñëw benn ñëw benn ci si bi boo ko boolee ëpp na cent mille mu jox ma ko ci kanam xaaj ma dem sa loolu génne cent francs compté woo maam Cheikh ne mi ni ko def sama zone maam ma sa góor bo nag bu mu indee xaalis bi laal si daal marché bi nii ma macha allah dafa sëñ bi moom jeex tàkk ñu ne kenn ku ne la barkeelu muy cameraman benn muy man ak muy Baye Mass muy soxna yi di tabarakallah dafa mbir yi dara daf laa ko ci la ma am ak des gee moom la jógee nii kon tabarakallah yàlla yàlla barkeelu sa tur ba sax maa ngi gën a wax te sëñ bi subaa ngay def. te sëñ bi boo ko xeeb mu la teree mu la tax man ko firndeel la. ci bokk ci àdduna arab ne ne ko doom bu la neex ñu sax xam-xam ak teggin foto nga fay tegg ma ne kan moo joxoon lu xataa su nekk fii xam nga bàyyi moo diine dafa yaa bari suñu doon mais kon dafa jom ma nga Aliou Taalib kan mooy bàyyi mu Taalib mosul julli mosul defal yàlla julli am na ixtilaaf téere yi naan gëm nag gëmul Aliou doon Taalib mais jàmbaar bu islam xam-xam ci moom la yem ci ndox la am yitte amul dépense du kas du ree gën a yëg am jeexit lay gàmm nee na Mouhamad maa ngi yëngu sa benn ay taxaw pour su lay lay def Mouhamad la gën a gën tey ñu am moom sa bari sax njabootam nii am na dara bu sëñ doon na am lu xam si rek def sama suñu soxna mi mu ñu te ndaw ma koy wax ma ne maa ngi nii mais kon nag foofu la nekk bu leen naka bu leen naka nga fexe ne ci yiw na fexe ne ci jàmm yàlla na fexe taxaw jub parce que moo lay ànd yëpp waaye di mu sa bàyyi sama yeeg na ko bàyyi xel mais loolu mën def dana sa jom bopp ci yitee bopp moom la jërëjëf yore diin kii sa alal foofu sa alal ndax jamono bi ñu toll ba amul alal boo ko si dund su sa ndaw boo jàng xam nga ko soo si ndaw jàng loolu jàng ko tax ñu wax mais jàng xam te sa tànk contrôle yooyu la xëy wax du bëri am solo li am solo sa wax leen ko yàlla fa leen ñu leen xamal ji bi ku bëgg loolu soxal soxal na fan jox ko jumaa gën a tab yi joxe ñaan dama xam baax wax sama wax saaxo saaxo ah ma tëri nga nee na mottali nga wëllale. sama diggante. sa diggante. sama diggante ak sa papa. moom diggante moom bàyyi Cheikh bi ak ak Moussa. sama diggante. baay bii. nee na ba léegi. moo la commencé ziyaara su yaay maa ko xotti déguisement. mu ànd ak daayira bi. dawul. dawul dañul. dañul. bay ren nag. kon nag. taxawu taxawaayu ndey. taxawu taxawaayu ndey. taxaw taxawaayu baay. taxaw taxawaayu sama la saaxu numéro deux. mais boo déggee mu yaay saaxu numéro deux. sa maam sa maam seetaan mu koy seetaan sa Dakar ma dee yalwaani su ma ma sol dàll du sol dàll sëñ kër yi sa jumaa kër yi sa jumaa kër yi sa lébu ya sa lébu naa ne paase ko sol naa borom barke wala borom bu mag

ñu ne heure sangam. ñu ne heure sangam. mu day. mu ni Sakho dëgg. mu fekkee naa loolu man. ah kon nag Sakho góorgóorlul. kon nag mu ne soo ko wax ñu déglu la. boo ko kenn du gàgganti. kenn du jàngul. jàngul. ku ne ku ne na. ku ne koy nax. da nga may yàlla yor. Ibou Sakho daal ku nekk xam ne may yàlla. may de. jàngul de. toog toog naa na si. ala yayub si. caatu caatu Alaaji Malick. caatu Alaaji Malick. si jàngi gi. caatu Alaaji si jàngi gi. mu ñëw toog. mu ñëw toog. tànt bi yow ba bay. tànt bi yëngu. ba yàgg. mu ni mooy njànge. mu ni fii ma ku ku fi ñooy jàng. mu ni fii dañoo ba. sa toog. mu ngi toog. sama wet. mu ngi kii mooy baayam. mooy baayam. waaye li ma wax si xilaasaab. waaye moom moom mënu wax. moom mënu ko wax. Alaaji nga dëgg de loolu fekk naa loolu. li nga wax ci muxaddam nag. li nga wax ci muxaddam. moo am. loolu moo am. El Hadj Abdoul Aziz. El Hadj Abdoul Aziz. radiyallahu taala anhu. moo ma jox lijaasa. nee na moo ko jox ijaaza. laaju ma ko. nee na laaju ko de. demuma. demul. dikkuma. dikkul. waa Njange. waa Njange. ñoo doon siyaare ji. ñoo doon siyaare. Maari Xari Saar nee na. Maari Xari Saar nee na. ñu mu ñu dem bay ba mu ngeen ba nappi. ñu demee ba mu nappi. wóolin sa biir moo Cheikh Wele. mu wóolin sa biir moo Cheikh Wele. moo la moo la yàddu de. moom Abdou Aziz moo xool de. di Iliyaasa bi. di Iliyaasa bi. yow sëñ Malick. di sëñ Malick. dama la yónni. dama la yónni. yaa ak Cheikh. yaa ak Cheikh. borom Iliyaasa bi. borom Iliyaasa bi. ma nga sa xumma. ma nga sa xumma. Cheikh ñaan ka moom. Cheikh ñaan moo ko moom. doo ma seer ñaan. doo ma seer ñaan. soo demee nag. soo góor yu woo ma njànge. góor yu woo ko njànge. maali xari. maali xari Sarr. nu ànd. dem jàkk ja. dem jàkk ja. kii. mag ñëpp ngi toog. mu jox ko Maodo mu jàng ba yeggal. mu jàng ba yeggal. mu ni salaamaaleykum. mu ni ko Sarr. ñu di ko saar mu ne ma wax leen ni leen mu wax leen ni leen li ma jox kii li ma jox kii laaju ko laaju ko fekkewul fekkewul demul demul yëgul yëgul nun njànge nun njànge nooy siyaare ji nooy siyaare ji bay tàggoo góor gi ba tàggoo góor gi mu woonu maa Cheikh Wele mu woon ko moog Cheikh ni nga yóbbante bii jël yóbbante bii sa jàkka ja sa jàkka ja ci loxo borom toog si loxo borom ni ko Abdou nee na ni ko Abdou nee na Maodo ma jox Maodo ma jox ma jox ko ma jox ko ma xam ma am ñaari fan si biiru. nee na si biiru. Iliyaas da koo laaj. ma ne dugg fi dem Dakar. mu dugg fi dem Dakar. ànd ak Maodo Sall. suba. waaye dina dem dafa dem. ñu xëy dafa Pamandel. kër ga. ñu ni ndékki li ba yàggal woo ma sa saal ba woo ma sa tukulóor ak benn tukulóor man ko papa man ko papa mu ni ma naam mu ni man na ñëw na ay ma dégg ma dégg ni moo tax ma ñëw ma ñëw woon li nga defoon maali xari la joxoon la nga ko moo Cheikh Wele jox nañu ma ko ma fan la mu ne man ko jàkka ja sa loolu laa waxoon de loolu laa waxoon na lu xew léegi man ko dema dégg sa mag ña mu dafa dégg sa mag ña ñu koo laaj waaye loo moom doo ko laaj mu loo moom doo ko laaj loo man ko laa góor góor googu laa gis. mu ne góor googu laa gis. bu noo boole bare bare. la boole doon si kanam du la du la seex. kanam doomu seex. bu ñu mu mujj raxasu. mu mujj raxasu. ma seex. xam nga mu ma ne ko déedéet. xamuloo ko. ko xamuloo ko. mu ne ma ndox moo fay safara. mu ne mooy fay safara. ko tane. koo ko. dimbali ko tax. te ay amee. fu ay jullit. sa mbokkum jullit. ko dimbali. ko dimbali. waxal. waxal boo tëlee. سمكم تالبي سمكم تالبي بولييني بولييني ماين téeméer def ko junni ku la may dërëm def ko téeméer Abdou Dey li la santaane ma taal sama loxo maa ngi Maodo Sall ak benn tukulóor mu ñaanal ma ñu génn tuur tuur tuur bi damm tuur bi damm ci bunt bi góor gi foo bokk maa ne ko waalo nga waalo mu ñëw ban façon nit nga mu ñëw ban façon nit nga amay ma nit laa rek nit laa comme nit ñi rek góor gii ñu ko góor gii si fu mu toll fu mu toll si martaba si martaba ñu xamee ko nga nga kullu tarixa ñu xamee ko kullu tarixa yaay seen xalifa yaay seen xalifa képp ku xeeb sallallahu alayhi wa sallam ku xeeb ku di xeer ku di xeer yonent bi yonent bi yonent bi salaam nee na yonent bi salaam abdu yaay xalifa ñëpp abdu yaay xalifa ñëpp ku mu nekk mu naqadi ku mu neex ak ku mu naqadi mu jox la ndigal mu jox la nga jóge waalo mu joxale ndigal mën nga mën nga moytu góor gi jar nga moytu bu kon li nga wax ci muxaddam kon bi ci des bi ci des ne waa CSS dama ne waa CSS seeru siyaaru siyaaru CCS. siyaaru CCS. ma ànd ñoom. ma ànd ak ñoom. ñoom. imaam Waalo yëpp. imaam Waalo yëpp. ak ak Cheikh Tidiane bu Dagana. Cheikh Tidiane Diop Gaaya. Aliou Diop bu Gaaya. ponk yooyu yëpp ñu ànd. ponk takk jikko yëpp. maa takk dem waxtaan ba yàggal. ñoo góor gi sànni si kàddu ma ne ko yaay suñu mag yaa jàngi Tiwaawoon baax na nekk borom daara bi mi ngi maa xool mun ma hee waxal waaye duñu lay waxloo wax ba yàggal ma ne ma ne ko si fi yàgg mun ma amiin ak yow man ko tër sa papa bu ñu borom daara yi ne wax nga dëgg de du fi ju mukk ilaa yawmal qiyaamati nga tër bi sa turandoo wax may la farsi farsi mu ne wax nga dëgg de mu jur Cheikh mii ak Habib mii man nga ba ma si waxin nga baal ma si waxin xilaafa juma xaaj Malik mu ne xilaafa xaaj Malik mu bindee xilaafa mu bindee xilaafa jox xalifa jox xalifa gisuma sëñ Babacar Si gisuma sëñ Babacar Si mu bindee xilaafa jox ab jox abdu jox abdu yooyu sa fa Abdou Aziz tollu si jamono tollu si jamono bindee ñeent ki béyt bindee ñeent ki béyt ñu ne xilaafa baa ngoog ñu ne xilaafa baa ngoog mu ne wax nga dëgg de mu ne waaw kay li nga wax kenn xoko li nga wax daal kenn waa tey ma décoré la si tarixa bi daal di woo Cheikh doom ji. mu indi benn lijaasa. mu indi benn lijaasa. a jaay jaay ñetti yoon. moo leen ma xool waaye. tampo laaji Maalik gi nii. tampo xalifa gi nii. sama tampo gi nii. tarixa Cheikh. dama laa yónnee de man. tarixa Cheikh. bu la kenn digal. amul Cheikh Mbacke. amul Cheikh ndigal. joxeel am nga ndigal. yaa di mu ni loolu daal amee na ko si tubaab wu سر الخلاف ختم بدايه بصيرة وأتوا عليه يا قرة العينين يا كنز العنا لتابعنا وقاتما أخلاقي يا سيد وجه سمائه والحسن وهربي علما البشر مدون مع نقول أو مسلما إن كنت جاهلا معرفة عن صاحب الآيات والقرآن منصور سمتني أو سمتكم يبقى ومن إجاد بخل بجوب نتوالي يفنان لمن سمتن إلى حق دائما دخلي مطل لمن بلا مصربي ما أقول في نسوسي جبلتني على وقت كنت تفضل لاهي كملتي أو تنجر من السيطان بمقصدة هذه tabaarkalla tabaarkalla li nga li nga wax si góor gi sama papa Alaaji Malick Ama Lamin Jow taalibe góor gi la lu sama baay. nee na baayam. sama baay nee na. baay kër daal di di jàng. ngi daan fanaan fanaan ci ni sabitu jàng. nee ba ba mokkal. mu ne ba mokkal. téere yooyu nga ñëpp ñëpp kaam yow mu bind si loxo ma Haji Malick. jox ma waaw lii foo ko bindee. mu fi dënn bi. mu ne fa woo nga koŋ. mu xaddama naa la. si alxuraan. demal. waaloo ngoon. sañ naa sama baay. si li ma fàttaliku. njaxaay. sanen. jagle. ndeer gi mu askanoo. ku fa ku fa ku fa ku fa ne kilifa jàng ci loxoom ba ba mbay leen mbay mu àtte ndax dama ko woon li ma suma mag ji xam ko si moom gi maa góor gi maa doon loxoom même bu ñu bind de yelwaani man yelwaani su ba waxtaane pot yi pot yu neex ya ma bokk ak moom taalib bu liggéeyal maa maa wetam kon li xam si moom sama baay li xam si moom sama jëkkër xamu ko mooy taawam waaye xamu ma dama jege woon waaye wax daana wax ni daan jàng ba yàgg da nga ñu sotteeku moo tàmba sembe bi fomp ba mag su ma gàggee kenn ma gàgganti si di mu ko kon loolu loolu sam si wax si góor gi Malik bind na loolu yëpp si dënnam xoolu téere si téere kon nag tabaarkàlla kon nag tabaarkàlla yéen seen fan si barke bis barke guddi gii barke burde bi barke Seydi Hadji Malick ak njaboota yéen a yàlla seen fan yokk seen àlluwa lafa leen seytaane yàlla mu tabi seen biir ndax dama mos dégg sama papa yooyu jamono ngi def délégation maa ngi toog si di boobu maa ngi liifanti ñu ñëw yu mokk ba kàndang sa waxu mag ña ndax borom xam-xam seytaane yab na ko lamiñ yab na ko waaye leen si yàlla musal barke alxuraan barke guddi gi lool yal na yàlla am na loolu baax commissaire ko boo déggee sànq ay wax moom la ñu war a fekk ñu ngi yàlla yàlla sàmm ko am na yàlla yàlla jàpp yàlla yokk doole ndax li nga def mën naa bàyyi mën nga ko kon nag li li nga bëgg moom li nga defal sant ko loolu mooy nit te jox nit ci loo xam ne ci comme moom jar baax na taxawee lu muy nii génne ñaar fukki junni teg ko ci ba ci biir ñu ko sant maa ngi gërëm ñaan yàlla yàlla yàlla yokk yéen moso bii yii am na moom moo ko joxoon daaw jaww ji bëri ñu ñaan yàlla événement laa ko soxla ñaanal ko ci yàlla comme ni nga ne yàlla sàmm da leen yokku ndax du sant di sant yàlla te comme nit leen doon baax nga ne ko yàlla maa yàlla sàmm yàlla aar woo fay bi yëpp dara lor jërëjëf joxe ñaan jox male ko ni amin رسولنا محمد الفرح ما أخلق وخرج لما سبق نصر عبد الله Thank you. سيدنا محمد الفرح سبق